asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 28 janvier 2019 ñu ñëw ci yëgle kaay yi moo xam sunu lamb la la tribune wala Leewtoo point net wala Leewtoo TV wala record bu dee yëglekaay bi nga xam ne nag moo di sunu lamb la moom que ñu xëy wan wala ñi mu xëy wane mooy Modou Lo le roi des arènes bu assen Assainies Ama Baldé sëlu bu ndaw ca Pikine waaye ñoom ñaar nag waxuñu kay wax nag mooy magi yi Lo di Ibou juuf loolu daal la ñu yëglekaay bi xëy tey wax Ibou nag moom la ñu dalal mu ngay wax ca Modou Lo rakk ja roi des arènes Ibou daal ba leer moo di Modou Lo combat bi mu war a seq ak daal jàpp na ne mooy combat bi dàq-dàq ci saison bi loolu mooy li nga xam ne nii moom moo di wax Ibou Diouf nee na tamit li leer ba leer nekk na combat boo xam ne luy suqali lamb lay doon nee na tamit amul benn événement boo xam ne daal mën naa dépasser Modou Lo mi nga xam ne mooy rakkam nee na li leer ba leer nag rakkam jooju li Modou moom mérité na sax ñu fay ko kase bu romb cent cinquante millions ndax nag def na ko fi wax na ko fi Ibou juuf mooy wax tey jëmale ci rakkam jooju nga xam ne moom moo di Modou Lo keneen koo moom dëkk parcelle di Franc mu nga xëy di wax ci koo xam ne tamit ba tey mu nga dëkk parcelle mu mel ni kon tey waa parcelle ñoo xëy ngar daaju yëglikaay bi Franc nag la mu xëy di wax moom day leeral si ñu doon wax ne day dem ca écrit ba Papa Sow di yu mel ni ki noonu Papa Franc ne na daal na leer nañ moom daal parcelle mbooloo moo ko formé te fa la bokk waaye li am ba des daal moom diggante ak Papa Sow moom am na droit bu amee écrit mu dem fa ànd ak moom di liggéey waaye moom daal jàpp na ne moom pour dem ci beneen écrit Franc waxul jooju wax Papa Sow moom nag Franc mu ngi koy défendre nee na Papa daal li leer ba leer moom nañu jàpp lii Franc yi wax de nee na Papa Sow tooñul kenn deful kenn dara nee na amul lenn loo xam ne ni def na ko ci lu ñaaw wala lu baaxul wala lees ko mën a jame baaram nee na loolu moom Papa Sow ko tey suba waxi noppi nee na li am kay lenn la ñoo dajaloo def benn dànk di ko jéem a yàq wala ñu koy yàqal waaye papa moom deful waxul loolu waxi ki nga xam ne nii moom moo di Franc la leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci di ci wax mooy ki nga xam ne nii moom moo di Alioune Sarr bu CNC wala moom ma ko jiite book am na loo xam ne daal jël nañ ko li nga xam ne ni daal moo di ay mesures yu bees teq ay caution yoo xam ne wala caution boo xam ne léegi daal moom dang muy un million lay toll da nga ko fay xel di bàyyi loo xam ne moom la ñu bëgg imposé ñi nga xam ne ñoo di promoteurs yi ak tamit tere face à yoo xam ne nii day am te combat ba wuñ ko mu mel ni kii nag jàk sama nga xam ne moo yor sañ wax nga moom ca promoteur ya moom daa mel ni loola ñu wax daal naqari na ko wala boog àndu ci wala moom daal jàpp na ne lii moom injustice la ko jàk si jàppe ndax daa nekk mbir moo xam ne daal jàpp na ne moom tegewut ci aw yoon loolu nag waxi jàk si la du sama ay wax leneen loo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci muy écrit boo xam ne moom mooy rëbës ñu mel ni ñoom fi mu nekk nii day fi ñu taxawee est-ce que baax na ci ñàkkum ay combat rawatina seen mbër yu mag yi seen début de saison daal neexul double moteur bëreegul amagul adversaire Zal Bawol waxi noppi amagul adversaire Caatu Rebeuss itam noonu mu mel ni ki ñooñu moom fi mu nekk nii seeni mbir boo bëggee dégg-dëgg doxagul loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na ñëw dina ko wax mooy combat boo xam ne taxaw na di ay xale ka ko taxawal nag moom moo di petit production muy diggante ibu ki nga xam ne nii mooy rawaan ak tiijan Faye numéro 2 keneen koo xam ne moom aw yoonam la tegu di dem muy Maam doomu Faas moom nag fi mu nekk nii ci ay ndam la taxaw mu nga toll ca ñetti sorti yoo xam ne def na ko yépp ay ndam la ca am Maam daal yëglikaay bi nee na daal mu nga tracé aw yoonam jëm ca kaw yëglikaay bi xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne tamit dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ca record fekki ko fa muy gridé boo xam ne daal yëglikaay bi xëy na tey ñëwati ci moom ak leneen loo xam ne tamit ñëw na ca muy diggante caatu ngewel ak ki nga xam ne nii mooy fils de Sallo record xëy na tey wan ñu ñaari mbére tamit ca la ñu jëm jëm le premier waaye keneen koo xam ne tamit dañ cay dem ko fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV muy Abdou Bakhoum Abdou daal dafa xëyati di waxati ca Modou Lo moom daal jàpp na ne daal roi des arènes nag roi des arènes nag Modou Lo daal la Abdou Bakhoum xëy di ko laam-laamee daa jàpp ne yee yaay dañ ko ko may loolu nag waxi Abdou baaxum la du samay wax vidéo ba mu nga fa nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo TV Abdou baaxum tey moo xëy ngardaaju foofa di fa wax li nga xam ne nii moom moo di ay soxlaam waaye leneen loo xam ne nii fekk nañ ko fi nga xam ne nii moo di ci yëglikaay bi muy fa nga xam ne nii mooy record record tamit xëy na ñëw ci xalima ak abu nduur daal ak lu caaka fay boo xam ne daal renfort de taille la ko tudde ndax nag li nga xam ne nii mooy championnat d'Afrique wala lit olympique ba daal caaka fay bu dee woon nañ ko ca moom li leer ba leer moom renfort de taille lay doon ndax nag ca catégorie cent vingt cinq kilos ya moom boo sàgganee fa la jëm mu mel ni ki kon daal ndimbal lay doon ca équipe ba nga xam ne nii mooy équipe réew mi waaye li am solo am solo daal Tidiane si almaktum waxam warees na cee wax noonu na réew mi buñ ko sangut ak xol yu set mu sang boppam ak deret te li ma gis fan yii muy dire ku di riir daa mel ni la sëñ ba waxoon mu ngi bëgg a am chaque jour nga dégg ñu ne rey nañu nit faat nañu nit jam nañu nit def nañu nii nit dee na yàgg maar te ñoo def la sëñ Cheikh waxoon jéem a sang réew mi ak xol yu leer yéeneen te jàmm ndax nag jàmm fa muy jóge du fa jeex te fa mu jëm du fa doy xol bu ñuul nag moo la gàllankoor yal na yàlla leeral sunuy xol barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. Adja Ndeye Kumba Fall maa ngi lay delloo ziar Siri Ramos di la ziar yow tamit di la nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy suivre Ramos Macha Ramos Ndiaye. Babacar ñëw ak nag eh, sunu mbokk internet yi eh, si eh, jàngatu arène bi nu commencé ko ak sunu lam sunu lam na dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Ibou Diouf Ibou Diouf di frère Modou Lo roi des arènes moom daal lu mu jàpp mooy nee na combat Ama Baldé Modou Lo moo nar nekk combat bu gën a neex si saison bi mi ngi wax tamit ne làmb joo dina sukkali làmb lu bëre maanaam xëy na ku si daan dina ubbil yeneen porte yeneen mbër yi pour nu mun a ñëw affronter ki nga xam ne mooy le vainqueur nee na benn événement si làmb ji lu mën a dépasser combat Modou Lo Ama waaw loolu Ibou Diouf a ko wax di rak di mag ci Modou Lo yaakaar naa nag li mu wax soo ko déggee xëy na jàpp yaakaaruma ne dafa wax en tant que frère Modou Lo mais yaakaar naa loolu mu wax sénégalais yu bëri ànd nañ ci kani combat wala acteuru làmb yépp ànd nañ ci tey kani combat ama ak Modou Lo combat la buy suqali làmb ndax dama naan demande sociale laa ko tuddee woon sénégalais dañ ko yàgg di laaj yaa ngi dégg kon defe naan Ibou Diouf loolu mu wax bokk nañ bëri nañu si bokkal xalaat combat la boo xam ne Ndeye Coumba Fall li muy jural làmb bëri na trop trop trop trop parce que boo jëlee xam nga li ma ñoom ñaar yàgguñu ci làmb Modou Lo 2006 la ñëw ci làmb ama su ma juumul ay côté 2010 yooyu soriwu fa est-ce yaa ngi dégg ñu mësoon a am fu ñu jaar ci bëree loola di raam Modou daanoon ko Modou ma laaj ko mu ne loola moom fàtte na ko daa jàpp ne combat bu bees lay bëri ama itam jàpp ne moom roi des arènes am leer na ko nañ ndax da koy jëli ji kon moo lay won ne combat bi waxuma la sax tolluwaay mais maanaam enjeu bi ci nekk moo njëkk a doy waar ñuy ñoo xam ne comme lu ma doon wax rek jom indi fi ñu nekk ndax boo leen xoolee euh, du doone ay mbër yu gudd gudd gudd lañu nangam sangam mais bu ñuy bëree ne ci seen biir ay compétition di nga xam ne ñi ay boroomi jom lañ kon yaakaar naa ne tey euh, ki nga xam ne nii moom mooy Luc Nicolaï encore une fois ñu koy nuyuwaat di ko ziar di ko ñaan yu nii ko Sénégal yi soxlaa ko kon moom itam yàlla na ko yàlla génne ci fa mu nekk mais jàppal ne daal loolu Ibou Diouf wax moom ah combat boo xam ne day waxuma la sa suqali làmb waxee leneen lu du làmb mën na cee suqali ko yàlla nañ ko fekkete Amin Babacar tey nag dafa mel ni journal sunu dafa xëy dalal ki nga xam ne waa Parcelles lañu ginnaaw Ibou Diouf dalal na ki nga xam ne mooy Franc Franc nag dafa génn di jàppale ki nga xam ne mooy doomu nday mi Papa Sow neen moom lu ma gis ne na dàq euh, euh, booloo nekk benn say rien que rek ko si biir écurie bi mën dàq ko fa waaw Franc de ba tey loolu mu wax euh, waaw man daal li ma xam mooy mbooloo ànd xeex nit ku ko mën a def waxuma ne la mu wax am de waaye bu dee lu am la wala mu ñàkk am itam loo ci mën a dégg amul njariñ ndax lépp lu waaye di jéemalab jaam lu ne te yàlla àndu ci it mën naa bañ a sotti ndax borom bi moo yor kun fa yàkkoon bi yaa ngi dégg xaw ma nag la mu wax ndax noonu ma ko waxee noonu la amee wala amewu ni waaye li am solo man la ma doon wax ci diggante Papa Sow ak Fass ca laay wax loolu laay wax ba tey moom laay wax fépp problème bu mën a doon bu ne nañ ko waxtaane ña ko war a séq waxtaane ko rafetal ko mu jeex ànd daggan waaye tàqali koo daggan sëy yàllaa ñu ko sant waaye defe naa ne nam ñu ko sant la ne donte tas ga neexu ko mais bu demee ba mënatul nañ ko tas te defe naa sëy dara gënu ko sëy moo gën a nekk rapprochement bi a jege si ay doomu aadama di ngi dégg kon yaakaar naa itam Papa Sow comme li ñu doon wax rek ku ne xam na ne doomu Fass la parce que foo juddoo doomu gox gox booba nga nekk ci bi durant carrière am ba tey carrière am yaakaar na la ca desati bëriwul même bu dee day dem wala muy toog loo ci mën a dégg ci ñaari phase yëpp moo xam ñenn ci écrit ba la ak moom Papa Sow ñu mu àndal nañu rafetal soo mi dugg ko marché parce que li tax mooy lii day jeex succès bi dana jeex lépp day jeex ëllëg ñëw ñu nekk ay yeneen dundaat beneen jamono dundaat beneen vie vie boobu jar na sóoraale kon moo tax lu ci waaye di wax sa morom rafetal ko te loo yéenewul sa bopp bul ko yéene sa morom nday Kumba Fall bu ma solatee mbubb jotuma bu ma la ko jéem a solal loolu am na solo Babacar keneen ki nga xam nag moo génn jël ay mesures mooy la président Alioune président du du moom daal jël na daal ay mesures yoo xam ni yenn si yenn promoteurs yi rafetlu woon ko nee na képp koo xam ne da ngay defati face à face balaa nga koy defati na combat boobu dem nu régulariser ko au niveau du CNG près balaa ngay taxawal euh, face à li nga xam tamit jël na ko tamit si euh, euh, ay ay ay ndogal si si ay mesures si si wàllu promoteurs yi nee nag képp koo xam ne jàppati nga date da ngay joxe 1 million comme caution su fekkee ni jour combat bi nag tëggoo date te amuloo benn cas force majeure boo xam ni moo tax combat boobu taxawul euh, sa sa sa sa 1 million yooyu da nga koy perte su fekkee tamit taxawal nga tamit nu delloowaat la 1 million yi ki nga xam ne moo jax jax nag moom nee na loolu injustice la daal maanaam daal mbirum jaay dool la CNG teg waaw maanaam su ma déggee wax ji maanaam léegi dootuñu jox kenn ab date saa nga bàyyi million ku fa ñëwati na sa caution boo tëggee ñu delloo la boo tëggul ñàkk waaw loolu de a ah, ay ndogal la yu ñu jël de xamuñ na mbir nag mu mën a doon des koy organiser waaye organisation boo gisit nañ ko waxtaane rek waaw parce que nañ ko def june nañ ko waxtaanee ko war a jiitu waaw buñ ci waxtaanee ba jàpp ne loolu mooy li war a ne manees na koo def yaa ngi dégg parce que mbir mu mën a doon itam de su ko bàyyi mu nekk ci anarchie déedéet dañ koy teg ci aw yoon waaye encore une fois rek man li ma doon wax laay wax promoteur itam nañ leen di dooleel tuuti li tax mooy ñoom ñooy bayeru làmb ji te suñu ne suñu fi nekkul tëgg du am yaa ngi dégg leneen li ci des mooy comme que euh, maanaam euh, képp koo xam ne nii. da ngay organiser face à face il faut que làmb ji taxaw au niveau du CNG mu jox la kayit ne wala nga taxawal nga làmb ji balaa nga def face à face. waaw loolu tam ma ne xel mën na koo dégg parce que tamit face à face ci yoon xëy na balaa ñu si war a def war na mën a régulariser combat ba. ba mu taxaw kon tamit bu waaye tamit damay jàpp ne bu dee ci face à face yi xëy na est-ce que ñu gën di teel a régulariser combat yi parce que des fois comme tey le cas de Modou Lo ak Ama Baldé xam ne ni tey promoteur bi dina ci bëgg ay face à face xam ne pour def promotion bu combat am ko yaa ngi dégg kon na bu fekkente ne teeres na ko régulariser loolu dina ko mën a permettre mu a def la mu bëgg lu ni gis nga keroog ak Papa Sow yaakaar naa ne est-ce que régulariser gu nañ ko te terewul génn nañu jàkkaarloo waxtaan def conférence de presse Abdou Diouf bërki dem def na ko gri 2 mais xëy na kon it du tere kon nañu gën a avancé kon xëy na bi ñuy régulariser combat yi pour que loolu war a mën a nekk jàk sa tamit jàpp na injustice la injustice nag moom baaxul injustice moom du lu gën xaw nag injustice la xaw du ko waaye daal loo ci mën a dégg injustice moom bu ko xoolee muy injustice di dëgg ah kenn warata def injustice ci lenn lu mu mën a doon waaye euh, a ñi ñi ñi ñi ko jiital itam nañuy nangu itam des fois itam ah ne mbir moo mënte doon it des koy teg ci ay règle rek waaw ok suñu laam nañuy dem fi nga xam ne mooy record record daan euh, lu si xalima abunu nee na Gris 2 si euh, su nar a jàkkaarloo ak Abdou Diouf section de rattrapage lay def maanaam dafay dawee comme que euh, combat am ko daan kon foog mu am ndam Babacar si kaw ki nga xam ne mooy Abdou Diouf waaw foog mu am ndam de ak war ak am ndam da dut benn foog moom mooy loo xam ne nii waaye est moom moom ndam waaw waaye dabe ga nag it waaw dabe moom moo am yàgg am ci làmb des fois da dem ba yéeg ñu laal say loxo nga beresti ko wàccaat ci suuf waaw utaat ku la toñ xëy na nag pour mën a ci kaw garab gi xëy nag bi yoon ci Abdou Diouf la bëgg a pour yéeg waaye ndax Abdou jaarukaay la foofu la question bi ne kon nag dañuy yónni yàgg bàyyi ba bés ba incha allahu rabbi jënnaam tamit nga xam ne ki nga xam ne mooy Ama ah, Boubacar ñaar nekk sunu naataango fee si sunu laam nee na daal mi ngi si ubbi saison moom ah, ci ay combat bu neex diggante caatu géwél ak ki nga xam ne mooy fils de Zal waaw yàlla nañ ko fekk retal ku la ma waxoon rek buuba moom mention spéciale ama eh, events boobu xam nga fils de Zallo ak Caatu combat espoir bu neex la war a am samedi le premier ca arène nationale ñu koy ñaanal yàlla daal mu dugg ak bisimilah rahmaani rahim génn alhamdulilah rabil alamin ndax promoteurs yi moom lu ñu yokk doyul parce que mbër yi bëri nañ macha allah te bu ñu sañoon ku am licence rek di takk ngem di nga xel da am ay combat di bëri pour nga am loo yóbbu sa kër ñu nag ak euh, championnat d'Afrique bi am foofu ci Algérie si euh, record aussi ni nga xam ne ki nga xam ne mooy Thiaka Faye di dina rejoindre équipe nationale pour renforcer catégorie plus de 120 kilos. 125 kilos waaw loolu am na solo kon ñu ñaan yàlla équipe nationale boobu jeux wala euh, championnat d'Afrique yi ñu jëm yàlla nañ fa am ndam indi médaille door yëpp fii ci réew mi ndax nag ah. olof ne na ràcc jëmale sa kanam mu dal te nag ay africain lañ ñun ñëpp waaye ku ne nag bu guddi jotee kër gi la ma doon wax rek kër lay doon su bët setee ñun ñëpp ci bi la ñuy ne di waxtaan ak a defee affaire ak a gonnal sax bu guddee waaye nag bu guddi jotee moom bët tët jot ndey kumba dana dugg néegam ma dugg sama néeg te néegee lal ya lal ya fay nekk lal ya fay nekk du doon benn kon nag ay africain lañ waaye nag ay sénégalais lañ Sénégal mooy sunub néeg kon yàlla na Sénégal gagné amin Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoor leen jox dig daje suba incha allah mais balaa ba muy nuyu sama yaay mère Sow nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astane Nene chéri Khadija Diallo nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmmagay depuis États-Unis di euh, depuis euh, Italie maa ngi koy nuyu di nuyu Mbaye Seye di ki nga xam ne mooy samay doom Maam Diarra Penda ya euh, Grand Fall aussi yaa ngi si biir sama bébé boobu noonu di nuyu ki nga xam ne mooy Ramos Niaye depuis Italie aussi Babacar naa la tamit xam naa yaa ngi wayal sa ngénte li nga xam ne moom mooy police parcelle ma koy nuyu di ko ziar gis nga li ma sol nii sa dèjà moom la kon kooku defe naa ne loolu la fi wax rek ah fu mu pikiroo dama fa war a sax naa ni doom waaw parce que nag ku lay jàppale ci la ngay def di ñëw lu rafet di la ko jox defe naa ne bu xewlee moo xam naqar wala bànneex da nga ca war a teew kon liir boobu di bébé bi yàlla na ko yàlla defal gudd fan ak wér-gu-yaram ñu dem ba koy muur muy sëli wala ñu koy utal borom ko soxna Karim di ko nuyu di nuyu soxnaam nday mais tamit mère Sow boobu ngay wax del wax sunu yaay mais sama yaay kese mère Sow sa yaay la sunu yaay la looloo gën a wóor mère Sow yàlla na sa jàmm yàgg ñu ngi lay nuyu di nuyu képp ku ñu suivre rek ñoom tuuti yaay Sarr duñ leen fàtte ñoom Khady Rose ñoom yaat euh, Fatma Fall Asi Diagne sama naar bi maa ngi koy nuyu borom noak sot di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy xam nga di nuyu fans club Babacar bi ku li koy yëngu ci dara ku lay jàppale rek mooy sa mbokk kon ñoom maa ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu tamit si club Leewtoo ñoom it maa leen di nuyu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy Fat Dia ñoom Cissé ak gars yi fa nekk yëpp ak mbër yi nekk foofu yëpp waaw ak jibi waaw jibi jibi baam bamba moom tam mention spéciale képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo Babacar a ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm waaye la ma waxoon sànq rek laay waxaat la sëñ Cheikh waxoon nañ ci bàyyi xel réew mii nañ ko sang ak xol yu set balaa muy sang boppam ak xol yu tilim te bu keroogee ay musiba lay jur te defe naa ne fi mu nekk nii saa yoo xëy di déglu rajo yi ay rey nañu diw rey nañu diw loolu moom vraiment kon daal nañu xoolaat mbir yi xaw ma nag ndax sénégalais yee koy def wala dafa am ñu ñu rax wala lu xew waaye waras na koo xool daal di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi barke yonent bi sallallahu alayhi def ko ci àddina bi yépp et yàlla leeral xol yi waaw ba suba incha